bokki M Media Group Nour Darini bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante suñu Boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santa Seexul Xadim di ñaanal bu baax Seex Muhammadul Muntaqa suñu Boroom yàggal ko fi lool te mu wér wala mu yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal njabootu lislaam moo àggale ko fu kawe di santa suñu Boroom bu baax bi nu may ñu ci jataay bi fas yéene dikkaat ak yéen ci sunu émission yóbbalu soxna yi muy zaadu nisaa il li nasihati al muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu uh, fàttalente la waaye jataayu laayante biir la ñu di ko amali fi ci ëttub M Media Group Nourou Darayni mu mel ni bi nga xam ne uh, moo paase noo ngi woon ci ndinkaan boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa ridwanullahi léegi daf ko dénk uh, soxna Penda Jóob mu doon dénkaan boo xam ne uh, soxna Penda Jóob lañ ko dénk waaye dénkaan la boo xam ne mboolem soxna yi ak mboolem guur yàlla yi kenn ku ci nekk rek mën nga cee am ak mucc àddina ak àlaxira ngir ndénkaan yi nga xam ne moom la dénk soxna Penda Jóob ci mu aw ca ak lim ko dénk ci mu moytandi ko mboolem képp ku ci ku ci teg sa tànk ci jëfe lam wax wala nga teggi sa tànk ci ñàkk jëfe la muy tere suñ boom subhanahu wa taala man na laa defal muccuk àddina ak muccuk àllaaxira lool moo taxan euh, ñu waxoon ne sëñ bi lam jëkk dénk soxna Penda Jóob mooy muñ muy alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaxfir laki yow soxna Penda maa ngi lay dénk ci nga muñ ak ragal yàlla ci lu nëbbu nag ak ci lu feeñ kon suñu borom dana la jéggal booy muñ na nga muñ te yàlla rek tax te li ngay muñ na ko nëbbu te yàlla rek tax na ko seereel suñu borom subhanahu wa taala mooy na nga muñ fi sirri wal dana la jéggal baatu muñ boobu nga xam ne bokk na ci li Sëriñ Tuubaa jëkk a dénk soxna Penda Jóob nag ci baatu muñ boobu la ñu bëgg a taxaw ana lan mooy muñ ak lan mooy lan moo lan mooy dikkal jaam bi ginnaaw bu muñee ci digganteem ak boroomam waaye digganteem ak jaamu yàlla suñu Boroom subhaanahu wa taala waaye digganteem ak jaami yàlla yi waaye digganteem ak topp yàlla waaye digganteem ak ñoom mooy yàlla suñu Boroom subhaanahu wa taala ci moom muñ nga xam ne muñ lu am solo la comme ni ko alquran karim waxe wax na ci suratu ali imran ya ayuha allazina amanu asbiru wasaabiru warabitu dellu waxaat na ci suratul baqara wala nabluunukum bi shay'in min alxawfi waljuu'i wa naqsin min al amwali wal anfus wa samarat wa basiri saabirina الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لما سورة البقرة waxoon na feneen itam bi xayri xisaab nga gis ne muñ lu am am solo la loo xam ne alquran tagg na ba tey woy muñkat yi tagg ba tey woy muñkat yi bii rekk doy na ci wala nabluwunakum bi shay'in min al xawfi wal juu' suñu borom daa wax ne danaa leen nattu ci mbir lu ci mel ni naa leen nattu ci ah, ci ak ragal wala mënatu leen ci ak wala mënatu ci seen alal wala ci seen ci seen ci seen jëmm wala mënatu leen ci seen ah, gàncax waaye loo ci man am rek ña nga xam ne saay bu natt ba dikkee ci ñoom moo xam dafa dal seen kaw wala moo dal ci seen mbokk wala mu dal ci seen alal ñoom ñu jëlaat lépp delloo suñu borom muñ ko ñooñu la suñu borom subhanahu wa taala wax ne dinaa leen bigal eh, ci ci aljanna dinaa leen bigal ci aljanna nga xam ne ñooñu nga xam ne saay bu musibaam suñu borom subhanahu wa taala dikkee dal ci seen kaw mooy ay isa asaabathum musibatun ñoom la ñuy wax mooy xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoom tey ci suñu borom subhanahu ci leen jógee dayet fa la ñuy dellu nana ñooñ ñooñee de xéewal ak suñu boroom subhanahu ak yërmande suñu boroom ñel na ñoom ñëpp ndax ñoom ñooy ñi jub te jub rek mooy li am solo loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne isaa ahabba laahu bi bala'in suñu boroom bu soppee ab jaam daf koy nattu ci balaa fa in sabara ijtabaahu wa in radiya stafaahu bu muñee balaa bii ko suñu borom subhanahu wa taala teg mu bokk ca ijtibaax yi bokk ñi ñi nga xam ne suñu borom daf leen a tànn bu fekkee ne dafa dafa muñ waaye mu gërëm dogal bii ko suñu borom tabaaraka wa taala teg ci kawam mu bokk ci ñi nga xam ne ay istiwaa la suñu borom subhanahu wa taala daf leen a tànn xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne suñ bu soppee ab jaamam daf koy daf koy nattu ci balaa balaa boo xam ne laa dawaa lahu fa in sabara ijtabaahu wa in radiya astafaahu la Sëriñ Tuubaa wax ci Masaalikul Jinaan in ahabba laahu ubayduhu bi nukbatin ibtalaahu fa xaysuma yastabir ijtabaahu wa xaysuma biha irtadaa astafaahu astafaahu nee na subhaanahu wa taala su bëggee as njaamam daf koy nattu ci aw boo ko suñu borom nattoo ci aw tiis nag mu muñ tiis woowee suñu boole ko ca tànneef ya waaye bu ko suñu borom nattoo aw tiis muñ ko boole muñ ga ak gërëm nattu ba ko suñu borom tabaaraka wa taala teg ak gërëm boromam tabaaraka wa taala nee na suñu borom subhaanahu wa taala bokk ci ña nga xam ne ay tànneefam lay doon del wax ne ahlul bala laysa lahum mizaanu wa laysa yunsharu lahum diiwaanu ñi nga xam ne suñ boom def leen a tegoon ay nattu aki i balaa ci àddina moo xam natt yu mën doon moo xam nattu ci sa jëmm la wala ci sa njaboot wala ci sa alal nee na ñu muñ loole jël lépp delloo ci suñ boom subhanahu wa taala comme ni waxee fa haysuma yi ji u xadaau rabbi famil lahu doona itadalin xal bi saay bu dogal suñ boom tabaraka wa taala dikkee na nga jël lépp delloo ci suñ boom tabaraka wa taala te bañ cee am ñëgg ñëggi xol loolu la wax ne ñi nga xam ne suñu borom daf leen a teg ay nattu teg leen ay eh, ay musiba ci àddina nee na ëllëg yowmal xiyaam amul benn balaas bu mën a taxaw ba àtte seen jëf yooyee laysa lahum mizan wa laysa yunsar lahum jiwar comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na deesut natt seen jëf yi deesut ko peese te deesu leen fang jëmale ci bis ba nga xam ne ca la ñuy àttee jàmm subhanahu wa taala noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax itam min wasaya allahu taala fi ardihi man hafizaha naja wa man dayyaha halaka mu ne muñ de ay ndénkaanel ci ndénkaanel ci ndénkaane suñ boom subhanahu wa taala saay am nattu ak nattu ba nu mu mën dikk cew nena nga nattu boobee danga mucc waaye waman dayaaha halaka waaye ku suñ boom teg nattu nga ñàkk muñ mat natt nana danga alku alsabru wasiyatun min wasaya llahi taala fi ardihi man xafisaha naja wa man dayaaha halaka wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama awxa taala ila muusa ibnu imran alayhima salaam ya muusa man lam yarda bi xadaa'i wa lam yasbir ala balaa'i wa lam yashkur nicmati falyaxruj min bayni ardi wa samaa'i wal yatlubu lahu rabban siwaah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na suñ boroom dafa waxyu dafa waxyu woon muusa muusa ibnu imran ne ko yow muusa koo xam ne gërëmu nattu yi nga xam ne moom laa koy teg dogal yi may wàcc ci moom koo xam ne gërëmu ko balaa yi may wàcc ci moom koo xam ne muñu ko xéewal yi ma ko yi ma leen di jox koo xam ne santuma ci xéewal yooyu nag génn ci sama diggante suuf si ak sama asamaan si te mu wuti beneen boroom dul man Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na eh, suñu subhaanahu wa taala moo wax yowoon Muusaa ibnu Imraan wax ko loolu waxaale sallallahu alayhi wa sallam asabru inda al musibati bi tisaati bi tisaati darajaat Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne muñu jaam bi ci natt ba ko suñ borom tabaaraka wa teg de suñ dana ko dana ko ci defal juróom ñeenti téeméeri daraja bi tisaami ati darajaat yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam del woo xam ne suñ borom cee teg ak aw tiis daf la cee teg balaa ne na moo gën àddina ak li ci biiram muñ ga nag te yàlla rek tax ne na moo gën àddina ak lii ci biiram وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدث على عبد مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحياء له يوم القيامة عن ينسب له الميزان أو ينصر له الديوان yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom bu tegee ab jaamam am nattu bu tegee ab jaamam musiba ci aw yaramam wala mu teg ko ci alalam wala mu teg ko ci ak njobootam dina mu jubale lépp ca suñu borom tabaaraka wa taala delluwaat lépp ci suñu borom mooy dina waxoon ci ginnaaw waxee o bi foo dogal suñu borom dikkee na nga lépp ci suñu borom bu ci am ñëggi-ñëggi xol nee na suñu borom bu nattoo ab jaam bi ci alalam wala ci jëmmam wala ci njobootam muñ ko muñ ko rafet nee na suñu borom daf koy rusal daf koy rusal sampal ëllëg yoman xiyaam ay balance yu bees ay jëfam wala mu rus koo boole ci ña nga xam ne ñoom la ñuy jiital ñu ñëw ci bis ba nga xam ne ca la ñuy àttee jàmm loolu la Sëriñ Tuubaa waxoon ci ginnaaw ahlul bala laysa lahum miisaan wa laysa wa laysa yunsharu lahum diiwaanu ñi nga xam ne suñu teg ay natt ñu muñ ko duñ leen feese seen jëf ëllëg duñ leen ommat ñu indi ci bis ba ñuy ba ñuy àttee jàmm ñi loolu la xaddis bi wax bi wax ne suñu borom subhaanahu wa jaam bi mu nattu ci ay jëmmam jaam bi mu nattu ci jëmmam wala ci àllam wala ci njabootam waaye mu muñ ko muñ ko rafet lool nee na kooku de ëllëg suñu moom am kersaak sampal ko ay balaas ñuy peese ay jëfam wala ñu jiital ko di ko yóbbu ci bis penc ba di ko àtte subhanahu wa taala Sëriñ Tuubaa nee laa yatrukul balaa wa abdan zamana xata yaxuttu anhu kullama jana wa kullu man aafiyatan xuna xawa fa in raa ahla albala waljawa yowma alqiyaamati yawaddu an yakun xurida jismuhu huna fi kulli xiin li ajli ma li ajli ma yashaduhu min fawaab lisil balaa'i lisil balaaya hauna bila xisaab nee na suñ borom bu tegee ci ab jaam am nattu ne du du di nattu ab jaamam ci jamono bu mujj mboolem bépp bàkkaar bu nekkoon ci moom gépp tooñaa gu nekkoon ci moom suñu borom subhanahu wa taala ko ko mu ne képp koo xam ne dangaa nekk ci àddina suñu borom jàmmal la ne na képp koo xam ne dangaa nekk ci àddina nekk ci sa jàmm amu benn nattu amu benn tiis nee ëllëg yoman xiyam boo demee yoman xiyam gis ña nga xam ne Euh, suñu borom subhanahu wa taala def leen daan nattu leen teg ay balaa ak itis ñu muñ ko ne da ngay njeeju da naan man de su su ma yëgan ba ma nekkee ci àddina sama àddina jipp jipp jipp ñuy ñuy siisoo sama yaram wi di ko daggate te ngir suma ñëwee fii am ci xéewal gi nga xam ne ñi am nañ ko nee na inna allaha bil balaa'i zutuha hudi li kulli abdin muminin mujahidi nee na suñu borom subhanahu wa taala day nattu ab jaamam ci ay balaa ni nga xamee ne jigéen ji boo amee doomam doomam di daw teral ko ci bërëb am xelam du ci jóg léeg mu dem nemmi ko diggaat nee na suñu boom subhanahu wa taala noonu lay nattoo ab jaam bi nga xam daf ko bëgg digg digg digg digg ci ay ay ay ci ay ci ay balaa kon jaam bi li boom mi ngi koy teg ay nattu di ko teg ay balaa na xam moom mi ngi bokk ci soppee suñu boom tabaraka wa taala waaye li fekk yaa ngi dund ci àdduna benn nattu benn tiis amoo benn lenn lenn lenn la ñu tiis su ma waree di tiis sa bopp waaw ah, kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne mooy li jëkkan ci li Sëriñ dénkoon soxna Penda Diop ci ne ko maa ngi lay dénk nga muñ ah, muñ moom lañ ci mën a wax bari na lool lool lool lool waaye dañ ci taxawlu moom insha allahu taala ba beneen jamono su beneen yoon ñu dikkaat ci at taqwa li nga xam ne ñu ko dénk alayki bi sabri wa taqwa lan mooy digg digg taqwa lan mooy njariñal at taqwa ناسي ودفن بالتوفيق ظاهرا وباطنا جوار شيخنا القديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينهما أغفاء ما النسج والورقاء والقار وفي فضائل آي مفصلة قد انسلت وأحاديث وأخبار waata nabiya bi amwaalin wa ankaaru bintan walam yaaru sakun wa inkaaru lam yastabil xamra lam yasjud ila sanamin walwalidaani maa al awlaadi abraaru. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg war nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey